ci biir kër sëriñ Abdou Karim Mbacke turam kenn du ko dégg ndax ñëpp yaay lañu koy woowee soxna Faat Bintou Pouy mu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax soxna si nekk ku effacé wu moom borom daayiratu tarbiyatu wal adabi li ëpp ci taawam mu di ko def ci waañ wi ku xam Baye Karim xam ne du tàggoog benn yoon ak mbooloo ak i gan leen berndeel ci anam ba mu gën a muccee ayib doon li ko gën a soxna Faat Bintu Puy di lieutenant bi gàlloo li ni mel tam ak miin mu mu miin liggéey bi tax na sas yu nur lool lu diis ci ab gis terewul mu oyofu lool ci moom ngir Pastef ba mu ci àndal togg gi ak waajtaay wi di laaj ay waxtu yu bari patience ak organisation rigueur ak fermeté lile soxna Fatou Binetou Pouye ne amu ci ay jafe-jafe ndax jikkoom la yaay fu ne nga koy gis ci cour bi ci biir waañ bi muy jaabante ak lijjanti ngir lépp mën a jaar yoon waaye wàccaay wi yépp sotti mën a yegg ci borom makaarimal axlaax ci waxtu wu mu ko soxla ay jumtukaay ak lu jëm ci wàllu vaisselle mu yor ci lim bu yéeme yaay di fësal ne du deñ di ko dolli ak di ko yeesal saa yu ko laajee waxtu xewlu jot na jàmmam jeex na fii ak Baay Faal yëkkati wuñu ndab yi yóbbu ko fa ñu ko soxlaa xelam doog di mën di dal ba mu wóor ko ni taalibe yépp xeelu nañ soxna Faat Bintu Puy ak waa daaya tarbiyatu wal adabi am ab temps bu gàtt boo xam ne dañu ko noppalu ngir bool yi ma a dellusiwaat ci ñoom dal di jublu ci lu jëm ci wàllum xéewalu ngoon gi maanaam reer bi ni la jàmbaar yi fàkk tëdd di jeexale bis bu nekk seen journée ca kër baay Abdul Karim Mbàkke borom makaarimal axlaax ci Tuubaa Ndindi liggéeyub jàmbaar fàkk tëdd liggéeyub borom Pastef bu nekk ci ginnaaw borom këram di sàkku ngërëmal suñu boroom waaye ngërëmul sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarimal axlaax